waaw dama bëgg ma ni Sénégal ñu déglu ma ci xel te xam na ni rak yi ñàkkul fayda jógewul ci famille n'importe quoi mhm. rak yi duñ ko takk ci farata ak sunna comme ni ñu takkee Clara Clara nekk jabar mu nekk jabar mhm. so nit ki nag bu ñu amul lu leen wóor ñun famille rak yi la ndax rak yi papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak mhm. kon xam nga ni rakki man ah, ah, gisuma ku ko gën a jege mais dafa fekk dafa di xale rek te famille teg ci tànk ni ko carrément bu na bàyyi détails yeeg wax yi puisque c'est pas important mais dafa fekk ni rakk yi duñ ko bës bës bës ko ci miiru wis bi mm-hmm. waaw am na lu nga xam ne nag rafetul ndaxte doora am na droit takk ba ñeenti jabar sax bu ko neexee ndax jullit la mm-hmm. waaye ragi nag ragalul kenn lu ko neex lay def xale la munuñ kenn munul ci moom tamit tarfatal ay ni mm-hmm. ay noo bu bu kii waree aay du aayeeg bu fay dem ak ay waxu dof ndax ñun famille am lañu xam nañu lépp li ci biir mais dafa fekk rek ñun yëf yi réseau du suñu yëf mhm. mais bi ñu waree wax nag wax ji leer na naññ Kalaara jabar la rek comme ñëpp yaa ngi leen seen jabar la raki jabar la c'est tout dooro day aaye fële di aaye fii ñun nag lijjanti wuñu dara mhm. ay waxi picc yi ñun amuñu jot boobu mais dafa fekk na rak yi dañ ko lu ne lu ne man chaque fois damay gis laay fi ñuy du ay fatam di wax du n'importe quoi boo xee man dama koy garaaw nañu bàyyi noppi rek bul wax mm. mais dafa fekk nag ni souvent nag nit munoo continuer rek ñu lay wax du n'importe quoi nit nan ngay takkee sa jabar te doo ko gis nan ngay takkee sa jabar doo aaye ak moom loolu waxu dof yooyu loolu gaa you have to very stupid pour ngay déglu yenn wax yi gis nga nit yàlla daf la may sa xel pour ngay déglu di xalaat du ay rumeur boo dégg rek ngay nekk di di du loo dégg rek ngay nekk di woon nit yàlla def la may sa xel pour ngay toog di xalaat nit lan lay takkee jabaram du fa aaye nan lay takkee jabaram du ko gis loolu yenwul maanaam moo tax nit ci il faut ñuy réfléchir te nit dara bu la wóorul te tey billahi bu ma pare léegi laa pare añ bu ma pare photo premier mariage Racky photo yi man maa ko yor vidéo yi yëpp famille am ñu ngi ko yor bu ma pare léegi dinaa ko dugal ci réseau yi ba ma xam lan la ci nit mën déet waay. man photo yooyu depuis bi ñu ko tax laa ko yor ak vidéo yi TikTok nit ñi ñii di ma déglu xam na ci dara. mooy photo ñu jël di dugal ay photo wala ay affaire am non non mais comme nag léegi nag nag wax dafa jot. Hmm. léegi nag yëpp laay balancer ba ma xool man lan la ci nit man. yan photo la mook wala seen premier mariage bi. seen photo mariage la seen photo premier mariage. ñu takk ko def ay shooting am def vidéo am def léppam. mais dafa fekk wax ji bëri coow ji bëri ñun ko garaawul bàyyil puisque rakki xale la. Mhm. rakki xale la rakki ba deux mille deux mille un la judd. soo gisuma lan la ñuy toog fii yóbbul rakki indil Clara ñoom ñaar ay ay ay jabar lañu c'est tout takk nañ ko takk nañ ko c'est pas la fin du monde Clara moomu nit ñi mënul kenn dara. ah vraiment. dëgg la de xam nga lu seen la rek comme yeneen jigéen yi. dëgg la nit buñ la takkalee wujj da ngay gëm yàlla nga xam ni jullit nga ay defante fii dafa pare daf ko jarul sax jaru ko bi dafa jeex ba pare lii yëpp bullshit la jaru ko. mais bu yaakaaree nag ni raki n'importe quoi la na dem Mauritanie mu laajte raki ci ban famille la jóge su boobaa moom elle va comprendre ni que am na ñu nga xam ni alal daf leen dab. am na ñu nga xam ne nag dañuy judd si alal xam nga loolu awushkiti dafa am ñaari différence ku nga xam ne yow alal daf la dab hmm. ak ku nga xam ne yow da nga judd fekk sa dëgg la waaw loolu kon kon gisuma lan la lan la ñu mën a jaay lakki euh, rakki si ay luxury or anything bu nga xam ne dafay jaaxal rakki no non ñun moom fulaani ñu ngi ci ginnaaw Racky Aïdara parce que xale la te dafa mhm. nekk ci yoon waaye problème bi mooy instant bi Euh, Clara daa mel ne de parce que supprimer na photo mi nekk photo mook Dora yëpp. mais moom waaw léegi bu meree naan Maladio yéenay wax Maladio wala I don't know boo fi boobu naan Maladio waaw na naan ma laa joo lan la mën ci raki raki jabar la moom jabar la dafa war a raki xanaa doo Clara biñ koy takk xanaa door a am woon beneen jabar n'est-ce pas dafa ñëw fekk kii yor beneen jabar mu dugg ci. dëgg la Sow la lan mooy problème bi man fi fa man xaw ma lu tax rek africain yi bëgg ay détail bëgg ay problème jullit la am na droit gis na keneen bëgg na bëgg na takk mais c'est tout jeex na. am na ñaari am droit wax lañ fi takkal ay wujju defuñu ko problème buñ la takkalee wujju kay. c'est pas la fête du monde ak yow la door yor beneen jabar. léegi fulaani photo photo rakk yi photo yu bees la wala. photo yooyu photo mooy bi mu ko door a takkee ba mu def ay shootingam ak yëpp rek umpalewul ak famille dara ni koy gis na dafa yaru déggal famille am. donc photo yi nii rek du dara te du dégg déggoo ak famille am day déggoo ak famille am liñ ko wax bàyyi day bàyyi liñ ko wax defal day defal liñ ko waxee bàyyi day bàyyi. yaa ngi may dégg ah. allo oh, oh, oh. non non allo. aw su may ma laaj ko ah benn question. yii yu bees sax la yii bokkul ba noonu yii yu bees la man li may wax mooy bi ñu solee jàllaaba gis nga rek xam nga suñu maam chérifu mm. chérifu waa fees la man sama papu yaay mooy papu papu raki chérifu waa mm. fees la yaa ngi de di moom sama maam waa PS mu ne après dafay sargal sama maam si la oh, jënd jàllaabe bi def photo shooting am mm. mais bi wax ci bëree mm. elle a décidé mu def bi am private man ko ok léegi bul génnee bàyyil noonu mais ñun ñëpp cousine am famille am ñi nga xam ne jege nañ ko gis nañu lépp mariage bi ñu rakki nekkul comme si duñ ko takk-takk suuf wala dara man nag xaw ma lu tax nit ñuy wax seen waxu dof yooyu yow nan ngay takkee jabar doo ko dem seeti doo lii doo ko lële loolu dafa am sens wéy leen di abonné ci compte TikTok bii di sama Sénégal 221 sama Sénégal 221 dara du la rëcc ci réew mi dara du la rëcc ci réew